Uh-huh. foo ne diw ñu ne diw diw lay génnal te donte donte marié guñu si foo ne bril ñu ne diw lay génnal uh-huh. c'est parce que bril moom fidèle na si ki muy génnal ba sañ foo ne bril kan la wax lay génnal Marichou Sénégal yi pay wax loolu donc ça veut dire mooy fidélité ak sincérité si si si nit bi ngay génnal nit bi nekkal quoi mm-hmm. c'est-à-dire comme comme euh, li kii li waa ji wax rek mm-hmm. pour man nit ki boo ko bëggee mm-hmm. jarul nga xëy nëbbu quoi. tout à fait man loolu laa foog. jarul nga xëy nëbbu. bu mhm. fekkee ne da nga sincère ci li ngay def. Mhm. am na ñoo xam ne dañuy mhm. pour bañ. ñu jàpp leen wala nangam sangam quoi. mais mais mais ba ba ba expliquer ñu tey. donc officiellement. Bril euh, Marichou lay ah, mais la <laughs> ma sax mais dama bëgg a na sax nag non c'est que question bu may tontu du ma ci wax mais mën nañu waxtaan. Mhm. wax bu ñuy waxtaan ma wax man ni may dundee nga xam ko sax wax naa la sànq naa la soo nee biril kan lay dañ naan la diw lay génn soo nee biril xam nga mosoo wax biril ñu ne la euh, euh, mais loolu c'est avéré ou wala nangam on veut juste parce que c'est la saint que nit ki dafay am amour ci mhm. Mhm. ko ko dafa gaaw loolu loolu xam nga tey euh, c'est vrai loolu mënu ma la tontu lu tax daal parce que am ay ay affaires yu nekk ci biir yoo xamante ah, ne. kon da ngay nëbbatu ci ñi ñëbbatu nga bokk non nëbbatu ma ay affaires yu bul ñu nëbbatu a xam wax ñu ki nga noob. <laughs> ndax ñu xam ko. man de xam naa ni li tax nga koy nëbbu lenn la. ah bu ko wutal dafa gaaw. mais loolu loolu c'est euh, depuis depuis ay. ay ay année ci ginnaaw quoi c'est-à-dire ay 2017 2018 ak yooyu mais ba seetloo léegi li ko nit ñi di wax sax bareetul quoi mm-hmm. parce que on sait jamais est-ce que Bril nekkul ci leneen mais peut-être c'est votre façon de maanaam de maanaam de les montrer aux Sénégalais. c'est votre en fait, façon en fait, de manager en fait, votre couple mais Sénégalais Sénégalais parce que pour man euh, là c'est c'est c'est la vie privée d'un artiste. mais ñun dañoo bëgg juste savoir. parce non. que tout le monde. da leen ko yéene dañ leen a yéene a dama la wax nee la dama la doon jox exemple dama la doon jox exemple par rapport ak ñii lu ñu def parce que en fait man la. Mm-hmm. Euh, c'est très beau que bu ñu mm-hmm. waxee benn nit rek kan lay génnal. Mm-hmm. ñu ne diw lay génnal. gars yi gars yi xam nañu ko mais loolu day fekk xam nga ñii dañoo toog wane ko. léegi yow xam nga nee nga ma xam nga yaa ko doon wane. ma toogoon ak ki ngeen di wax comme bu toog ma toog ma xool bu naax. Ah, kon man man mën naa def de. nañ leen jël Sénégal teg invité ma kan de. ñu bu la li may laaj mooy wax ko en direct su ma ñëwee di ngeen nangoo bu boobaa su fekkee amul doon dañ naan la amul. Mhm. fekkee am na ñu ne la am na. yaaw ba invité def officiellement. officiel officiellement. léegi yow da bëgg a am son aval ba pare soog a wax wala. man awuma problème boobu invité leen rek ñu xool ñu toog jeex na na nga fexe ba ba leen invité rek. <laughs> Euh, non man moom man moom damay ñëw. te bu boobaa naa la leer naa la lu ci am lépp. jeex na.